ñu daal di euh, dikkaat ci xibaar bi rek tey vendredi le 4 juin 2021 xam naa xibaar bi ñu ko jàngee léegi ci waa i rajo mu ñuy joxe daal ne fële ca Tiwaawoon ci kër sëriñ euh, Moustapha si bu al Moustafsidin wal Moustafsidaat dañ fa fekk daal benn euh, néew benn waay léegi nag bi nu ñu arrêté gendarmerie wax na ne ñëw nañ ca kër ga bi ñëwee tamit fekk fa néew bu fexe na daal ba yóbbu ko. mais jamono bi ñu fay yegg nag wax na ne amul benn jafe-jafe boo xam ne am na fa ci diggante ñoom ak waa kër ga wala xëy na lenn ci ñeen fa fekk donc ci gàttal daal li ñu ci mën a jot ci pour le moment mooy néew bi jël nañ ko te it tamit euh, def dinañ autopsie bi waaye ubbi ab enquête ci lan moo waral génn àdduna ak kooku kon ñu jàpp ne rek euh, loolu mooy liñ ci jot a am ay xibaar ci lu gën a néew xëy na da ngeen ko toppaat ci seen. Euh, bande rajo bi di i rajo ndax yaatal nañ foofu bu baax a baax bu ko defee danañ xam exactement lan mooy xew-xew boobule ak lan moo ko waral. waaw information bi daa mel ni mu ngi wër rek euh, soo ko déggee nag da ngay dafa mel ni da ngay jàpp ne maanaam dafa am ab néew buñ fa gis rek noonu noonu noonu euh, problème mu Cheikh Béthio bi la lay xaw a jox waaye demeewut noonu euh, sëñ Moustapha si benn taalibeem la lañ fa Euh, ku ñuy wax Kaatim Touré foog naa biñ ne suba la julli ko rek yaakaar naa la faatu moom euh, léegi ñu dencoon ko fan yaakaar naa nag ay problème mu suuf si yaa ko moom ak nangam nangam foog naa ne moo tax gars sulli ko daal am am ñu sulli waaw. waaw loolu moom sëñ Moustapha moo joxe ndigal loolu ne nañ ko fa ah sëñ Moustapha si boppam moo ko boromal boppam comme kër gu yaato yaat la rek comme sëñ Seex même moom xam nga bi mu moom tamit si benn këram lañ ko rob noonu la demee rek. waaw gëstu naa ko waaw ki nga xam ne waaw mooy dox waame yu may wax góor gi léeg la moom laa koy wax moom laa jot tabaarakallaahu waaye daal nee na moom kër gi comme li sëñ Moustapha wax ci audio bi góor gi mi ngi kayitam yépp waaw kayit yëpp mi ngi fi waaw parce que euh, moo ko moom moo ko moom moo ko mooy joxe tam pour ñu denc ko fa parce que moo ko moom waaw moo tax euh, dalal xel yi rek incha allah yàlla baax na ñoom dañuy tappaas moo tax mais yàlla baax na. Euh, juste que information la waaye comme ni ko mbokk bi wax rek information bu tiis la bu naqari boo xam ne. kenn kenn yaakaaru ko woon ci àdduna ne nit euh, woowee na noonu xool ne nit soxore na noonu ne nit mën na tooñ ba àgg foofu kenn foogu ko woon ci àdduna moom ah man boobu su ko defee suñu góor gi tedd gi ndeysaan Pa Kaatim Touré nga xam ne lu nekk daj na ko ci daayira bi lu nekk daj na ko ci tariixa bi lu nekk lu nekk tabaarakallaahu noppalu ñu denc ko jour korité ay saay-saay yu bon organisé wu nañu ba Euh, sulli ko fañ ko suuloon yóbbu ko ba fii ñuy wax ak yéen nii nag ci lu ñu mujj am ci information kenn xamut fan lañ ko yóbbu kenn xamut fan la nakk moo ki yenn nat ci ay élément sécurité yoo xam ne man def naa la tout pour jot leen mais kenn ki rek laa mujj jot donc loolu euh, lu métti la daal laa ci xam ne xam ne lu méttee ngi noonu nag ñu amoon góor gu mag gu baax goo xam ne liggéey na lu ne nga denc ko ñuy xëccoo naan la ay ay fii suuf laaj fii suuf a jàmbur la te Serigne Moustapha mille neuf cent quatre-vingt xaw ma quatre-vingt-deux su mi ngi waxtaan espace boobu mu amoon noonu ak ñu doon sax ba ma Maodo di ko wax na ko xaw ma waa Kataas lañ xaw ma am nga am nga foofu suuf xaw ma ba fa la ñu denc Serigne Cheikh nga xam ne Ablaye Fall bu njàndoxum su ma juumul moo ko mayoon Serigne Moustapha ak Serigne Cheikh Serigne Cheikh doon ca bay lu yàgg la Euh, waaye rek euh, góor gi lu ne jàngal nañu ko ci conférence mujj bi waaw ñaar yi mu waxoon ne noon bu pexeem dul jeex ak wujju xolam dul féex ku bu bàyyi ko xel ku bu bàyyi ko xel wax dëgg yàlla euh, laylatul xadr bi lu nekk góor gi junj nañu ko wallaahi fi ba tax na daal mu ngi noonu loolu moo fa nekk ci loo xam ne nag xëri na lool